mbokk ni ñu koy defee ak yéen rek saa su ne di dalal ay ndaanaan waaye tey nag ñu dalal loo xamante ne ni ñu koy waxee dootuñu ko présenté sénégalais ndax liggéey bu am solo bi nga xamante ne saa su ne ñu ngi koy def eh, di ko bégalee li nga xamante ni moo di sénégalais suma siste Amina suñu ko waxee nag xel yu bëri day dem ci série bi nga xamante ni actuelle nekk buzz ci li nga xamante ni nag ci net bi di famille sénégalaise saa su ne ñu ciy bégal nag askan wi bu baax a baax a baax tey nag ma dalal ko fas yéene waxtaan ak moom fas yéene partagé ak moom lépp loo xamante ne rek sénégalais ñu ngi koy xaar ci suñu jotaay si sa am naa mbégte tey bu baax a baax a baax dalal la fii ci Sénégal Buzz 221 ma bàyyi rek ngeen yokk mbokk internet yi. waaw salaamaaleykum àddina salaamaaleykum Sénégal yow sama frère de cœur nga. Mm-hmm. maa ngi leen nuyu di nuyu képp ko àndal. Mm-hmm. di la jox sa wàccuwaay bu baax di santaat yàlla di julli ci Yonent bi. Mm-hmm. di nuyu Sénégal Buzz. yéen fi nekk yéen a fi teg tànk loolu la yàlla dogal. loolu la yàlla dogal. <laughs> waa di santaat Serigne Saliou bu baax di amaat jërëjëf Serigne Saliou. Mm-hmm. ndax moom laay ubbi mooy sama wasila. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah yaakaar naa ne kàddu yooyu kàddu nuyoo yu am a am solo la comme ni ñu ko waxee rek jamono ji euh, yéen a ngi def liggéey bu am solo boo xamante ne sénégalais yëpp rafetlu nañ ko waaye aussi euh, day baax tey boo toogee ak nit nga waxtaanee ak moom tuuti ci li nga xamante ni moo di ci ginnaaw yaakaar naa ni yàgg nga ko waxtaan ak sénégalais ci li nga xamante ne moo di jaar jaar bi tënk na jaar-jaar boo xamante ne sénégalais yi comprendre nañ ma si doon ñëw ak yow tuuti ci les moments de galère ndax jaar bi dund nga ci galère boo xamante ne ba tey euh, mi ngi sa xol. ah bien sûr que aar dafa doy waar te aar dafa mm-hmm. nekk loo xam ne aar du ëmb rek xëy rek wasit mm-hmm. ñu ci trop macha allah bay ci suñu mu mel ni nekk loo xam ne da koy mokkal du looy mën du looy mokkal du looy jeexal. Mm-hmm. jaar-jaaru àddina mënta ñàkk. yoon bi gudd na bari na ay xaaxaam hmm. waaye ñu santaat ci sëriñ bi bu baax ndax dañoo am dimbal ñun li may wax rek saa su ne man dama am wéeruwaay hmm. kon lépp lu ma galéré man wala lépp lu ma mosoon a galéré tey neex na hmm. waaw galère nag mënta ñàkk maa ma gën a xam ndax jaar nañ fu metti maanaam fu metti mooy dangay am waajur bu jigéen man làkkat laa tukulóor laa bu dëkk ma nekk ci benn famille bu mag comprendre nga famille bu rëy macha allah ma leen di nuyu di nuyu sama yaay sama xol sama xarit. Mhm. di nuyu képp ku sant Njaay nuyu àdduna wërngal képp. mais famille bi comprendre ñu woon ndax dama bàyyi teel a bàyyi jàng. Mhm. ndax aar daan dem répétition bu ma ñëwee ñu dóor ma ba ma bëgg dee dama arrêté ma dëgër bopp. donc samay mbokk man épaulé nañ ma gaade waaye xaw naa de xaw gaa dee waaw. Mhm. xaw nañ maa rey. ci bëgg loo xamante ne yow ñoom gisuñu woon amour bi nga am ci li nga bëgg. mënuñu ko woon gis. parce que moment boobu lañ doon naan taxawaar ju na su ma ñëwee sama mag bu jigéen yàlla na ko yàlla yërëm mooy sama taaw yaay danaa sama yaay xool ko 5 heures 4 mu toog di maquillage naan day dem répétition te noonu laay def di yéeg ci car rapide di dem répétition ndax daa am fu ma jaar nag mu metti lool ma koy santaat bu baax mu mel ni dama jaar ci tontoo kémi komi bu Grand Médine ma jóge ci tontoo kémi jaar daaray xam le aale ñaa maa koy n bu baax ndax def na ci man ma jóge fa ñëw gëm sa bopp bu intervenir xanaa da kon yëf yaa ngay metti mhm. ma jóge fa ñëw gëm sa bopp ci góor a njaay mhm. maa ngi koy nuyu moom it macha allah jóge fa daal di jaar géej waaye coolu coolu lépp ñoom la mhm. maa ngi leen nuyu du nuyu képp ku nekk arko géejawaay waaw yaa ngi leen di nuyu waaye ci galère boobu noonu léeg-léeg nit dina ci dund euh, loo xamante ni mbégte lay doon saa su ne du doon ci li nga xamante ne euh, wala du ko fàtte ci ci ci dundam ci moment yooyu noonu ban moment nga ci dund loo xamante ni mbégte wala nga dund ci moment boo xamante ni tey euh, doon na tey naqar loo xamante ni heure boo ko xalaatee rek tey sa xol tooy ci moment de galère yooyu. waaw loolu moom yaa ma gën a xam xam nga du liñ naan du lépp la ñuy mën wax mais li metti moom li metti lépp lépp lépp mënuñu ko parce que aar moo metti képp ku ci jaar ak képp ku ci nekk. Mhm. dund nga ci lu metti yow nga bëgg dem répétition amoo paas dafa metti mhm. nga bëgg a dem festival amoo paas dafa metti nga dem festival jouer spectacle ñibbi si kenn fayu la. yow da ngay lijjanti wala nga koloo dara pour ñëw jox sa yaay ne ko lii lañ ma fay te ñu la loolu mhm. yow da nga bëgg won leen ne carrément que lii bëgg nga ko xam nga dafa metti mhm. mu lay jaral ngay jaayantu ay parfum di def petit commerce xam nga di ci bëgg solu ndax aar dafa doy waar mhm. booy dem di nga solu di nga fekk say nit foofu donc da doon sama côté parce que dama doon jaay ay parfum xam nga di dem Gambie di indi ay bagage di jaay pour mën di solal sama bopp di mën di fekk ci nit ñi léeg-léeg mu metti bu ma ñëw du ma lekk du ma naan dama ñëw tëdd nelaw su ma xëyee war a dem répétition wala ma am programme kenn du ma jox maay joxal sama bopp donc day métti te yow say parent comprendre luñ la mhm. sa entourage kenn comprendre xamuñu ne yow lii da nga bëgg amour la loolu rek dafa metti ba moment nga commencé sentir ne ah xëy na yàlla mu ngi commencé ñëw maa ngi commencé gis sama bopp wala yëg sama bopp ci li nga xamante ni maa ngi si doon sonn te nit ñu comprendre ñu woon waa mooy 2012 2012 2013 waaw je me rappelle parce li ma naan aar du ëmb day xëy wasin mhm. euh, dama nekk arko di ànd ak ñoom ñuy liggéey def yëpp tonto Aline Pikini production maa ngi koy sama papa bi Serigne Saliou bi nu ma mel moom la. Mhm. mu daat may jël ci bés. benn série boo xamante ne bu neexoon la. Mhm. ñu liggéey si daat ci am xaalis mu nekk salaire bi ma njëkk a fayeeku xaalis bi ma jox comprendre nga. mu bëgg ci kontaan dem jox sama yaay. ndax comme moo doon tax may sonn. te bunt yaa ngi ubbeeku. kon foofu naan yëf yi même lépp ñëwul. waa lu ñu naan xëcc bu daggul dikk. mu xam ne yëf yaa xel a ngi commencé daal. waaw 2012. <coughs> mu nekk moment boo xamante daal euh, commencé nga si gis ni aar ni lay commencé fay. waaw waaw waaw. Mhm. bi nga jógee ci loolu yaakaar naa ne point boobu day am solo bu baax pour léeg-léeg ñu leeral artiste bi nga xamante ne sénégalais ñu ngi koy gis ci benn vie bi mhm. ñëpp jàpp ne rek daa xëy rek yegg foofu moo tax léeg-léeg ñuy euh, dooree ak ñoom ci li nga xamante ne moo di début carrière bi mhm. waaye ñu taxaw nag actuellement ci li nga xamante ne nag yaakaar naa ne sénégalais ñu ngi leen ci euh, kontaane muy li nga xamante ne moo di euh, famille sénégalaise naka ngeen dundee li nga xamante ne mooy succès bi seen famille sénégalaise jox artiste <laughs> waaw loolu dama ciy sawar parce que succès da nga koy àttan mhm. soo ko àttan dalay sonal mhm. te ñun macha allah waxuma àttanuñ ko waaye ñu ngi koy jéem ndax ñun ay taalibe lañu mhm. succès sonal lu ñu te xamuñu succès waaw ah, li ma waxoon sànq laay waxaat rek xam nga ku nekk li nga nàmp ngay tàkkamtikum boo teelee sob xam ay nit nga am ndimbalu Sëriñ Tuubaa di dem fu nekk di gis mbooloo bu nekk donc succès du ñu sonal ñun ay taalibe lañ dañoo nangu succès bi yéeguñu sonaluñu Mm-hmm. waaw famille sénégalaise nag macha allah dafa cartonné. Mm-hmm. àdduna wër nga képp ñu ngi koy seetaan partout fépp foo dem ci àddina. Mm-hmm. dangay dem ba doo mën sax génn yow. ñu ciy santaat yàlla te xam ne lépp lu sotti am borom. waaw te nit ñi famille sénégalaise lañ gis parce que Madior ak Dior jaar na fi. VIP Sañse jaar na fi ak yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen série bu dul. famille sénégalaise xëj na famille sénégalaise. waaw yaa ma gën a xam daal. Mhm. suñu wasila da cee teg loxo. Mhm. ndax borom mbir bi sëñ Saali wa ko ñaanal. Mhm. <laughs> man fa laa ko jàpp. faroon nga ko jàppoo ah. waaye mu doon loo xamante ne dafa mel ni benn message la boo xamante ne moom ngeen ni euh, wan sénégalais. Euh, ci lépp loo xamante ne yéen ngi koy joué nekk na réalité yoo xamante ne nit ñi ñu ngi koy dund seen biir kër. Euh, ndax di ngeen ci toog léeg-léeg taseeg nit mu ne lii ngeen di joué tey maa ngi koy dund ak sama kër wala nit a ngi koy dund ma koy gis. bien yi day ñëw. parce que ñun li nekk ci biir kër yi lañ génne teg ko ci kaw taabal bi mhm. ndax dëkk bi léegi dafa toj mhm. léeg-léeg da ngay dajeeg da lay wax dara sax da ngay gis sa bopp mhm. donc mu nekk loo xamante ne ñëpp xam nañ ne koo daje la ngay xam ne yow kii laal nañ ko famille sénégalaise li nekk ci biir kër yëpp lañ génne teg ko ci taabal bi ndax moo fi am waaw àdduna nag metti na mettiwul nit ñi dañuy jaawale personne ak personnage waaye man damaa santaat yàlla xam ne role bi ma joué. Mhm. réussir naa personnage bi moo tax ñii di ŋàññ. Mhm. ñii di la xas. Mhm. ñii di la bëgg ñii di bañ te bañuñu sax peut-être dañ comprendre. waaw dañoo euh, ma taxaw tuuti ak yow ci euh, rôle bi nga xamante ne moom nga koy moom ngay joué naam dañu koy faral di wax à chaque fois. jigéen buy sëy wala bu nekkee ci euh, li nga xamante ne farata la du am xarit. bëri na xamante ne nit mi ngi koy ñàkk ci àddunaam lu bëri xarit moo ko koy dugal wala dañuy naan sax xarit bu bon moo ko ciy dugal si sa position yaa soxna Bator <laughs> lan nga mën a euh, leeral sénégalais tuuti rek ci message boobu waaw foofu sénégalais yi teg nañ seen bët ci lépp parce que personnage boo xam ne ñëpp gis nañ Amina ni mel ak soxna Bator soxna xaritam la mm. doomu ndeyam la mm. Amina am na jëkkër soxna am na jëkkër soxna mu ngi sëy <laughs> respecté wul maar <laughs> Amina nopp na jëkkëram bëgg na ko respecté na ko uh-huh. Hmm? Uh-huh. léegi lu tee soxna xool ni Amina di def mm-hmm. moo fi am ndax léegi dëkk bi dafa toj mhm. xam nga nit ñi dañ naan booy sëy del ànd ak kuy sëy mhm. mais nit mu ngi sëy sax mhm. di ànd ak kuy sëy sax te épaulé wu ko nit mu ngi sëy ànd ak célibataire sax fekk mu ngi lay dimbali ci sa néegu sëy comprendre nga. Mhm. loolu moo lay won ne xarit amatul xarit dafa jafe. waaw parce que bi ñu xoolee xarit la lay woowee à chaque fois sama doom ndey sama doomu ndey. Mhm. waaye <laughs> jaaxle woo nga ànd ak moom ci loo xamante ne dina ko jëriñ wala mu koy dimbali ci ay tuuxi duuna rek nga koy dugal te loolu bëri na ay xarit yoo xamante ni ñu ngi dund réalité bi ak seeni xarit ñuy ànd ak ñoom di kaf di ree ñu leen si ñu jàpp ne kii ku lu baax rek la ñu bëggal alors que bu sañoon suba suba suba suba mu torox. dëgg la. Mhm. moo tax ñu ne leen nañ fi seen bët di xool xarit amul dafa jafe xam nga kuy sëy daa am nooy àndee ak nit man pour man jigéen buy sëy sa borom kër ak sa goro goro mooy baasu sëy fii ku fi am borom kër mhm. téyewoo sa goro mhm. noo perte nga mhm. ndax bu jin njaaga goro yee njaag ah ki jural sa jëkkër amoo fa ah, yàlla dëgg la bëgg baasu sëy dëgg bu gaa dëgg la ci la bokk mais baasu sëy lépp goro la waa ah, nga téye sa borom kër téye sa goro def ko xarit boo gisee xarit boo xam ne yow kii leer na ne yow sëy bii arrangé wu ko mais dama lay écarté mhm. sëy sama sëy ku xool Amina ak Batour xam ne sëy dafa doy waar xarit amatul mhm. bu amee tamit bëriwul mhm. ci message bi ngeen di jàngale euh, lan moo waraloon euh, yenn influence yi bëggoon mu tas la wala ñàkkoon ko yéen a jëkkër ndax loolu day am ci xarit léeg-léeg nga am jëkkër say xarit duñ la yéen a say jëkkër bëgg nga tas lan moo doon message ah parce que moom xoolul képp lu ay bëtam moom mënta sëy man may sëy man ma nekk ci sëy bee di tar bi waaj nopp waaji ba ragal ko ba ñemee ko bu nee bërit ma daw lu wax ma ne ko gongo moom mu am jëkkër ju baax tubaarikaal la baax lool maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu képp ku nekk famille sénégalaise ak épi ndax awma mm-hmm. seen fay mm-hmm. yow nga am jëkkër mu nekk maar mu baax bëgg la mm-hmm. ngay seytaaneem da koo mat seytaane nag tubaarikaal la dëgg neexul ah moom seytaane la ah waaw loolu de dëgg la moom loolu sama xarit lan nag sama xarit lan nag bëgguma ah. wax lu mbay mere mais yow garaaw moom dina comprendre maa ngi koy nuyu bu baax batóor ku baax bëgg yaaye macha <laughs> allah dëgg la dëgg la mais dafa mat borom këram seytaane moo tax ñu ne góor booy takk da ngay takk ki la mat seytaane li tax maarloo nopp ko dugal ko ci biir xolam mhm. fekk na fi aawo waaw moom mu nekk ñaari keneen fekk ko fi keneen fekkaat ko fi waaye dañoo bari pexe lu ñu lal mu laal jëkkëram da koo nopp da koo bëgg fan la dugal jëkkëram waaw mhm. ah, daa xarit bu koy cotisé di xarit bi di dëng di dëng di di doy waar yëpp xarit baa ngi koy cotisé di ko jox ay gele mhm. moo fi am kon waxee euh, bëgg nga sa jëkkër nopp nga sa jëkkër ba rabal ko moom mu sikk sikku boppam jigéen bi sëy baax na mu ragal jëkkëram wala yab jëkkëram ba du nu ko neex doxalee ak moom tey bos doon jël ban nga ci joxe waa loolu euh, ragal sax du am respect mooy am ok ragal du am ci diggante jëkkër ak jabar maanaam léeg nga am góor gu yóbbu sa fit daf may dal day dal keneen mhm. waaye respect moo fay am nit mënoo ko bëgg ba pare ne da nga pare pour sëyal ko te yàlla tax te doo ko respecté foofu wone nañu lépp moom bëgg na maar ah. mhm. waaye dafa yeb Marlo ndax Marlo daf ko won ne yaa fi ne. mbëggeel bu ci yabante amee ndax dina dem. waa mbëggeel nag wax dëgg yàlla euh, ci ci ci même bu dul mbëggeel sax maanaam waxuma say diggante jëkkër ak jabar relation boo gis communication ak confiance moo ko yor. Mhm. base bi lépp loolu la. donc yabante bu ci amee du neex ndax nag jëkkër sang la danga koy tarbiyu jëkkër da nga koy neexal. Mhm. boo bëggee jur doom bu baax jëkkër ak nu mu mënti mel jëkkër la. Mhm. Euh, loolu am na solo loolu jëkkër dañu ko war a euh, tagg respecté ko teg ko place mhm. waaye comme ni ñu koy waxee rek bëri nañ jigéen ñoo xamante ne jàpp nañ ni defante wala yóbbu nit ci sëriñ wala mhm. yàq nit loolu mooy sëy. lan mooy sëy. tardé lañ leen. Mhm. fii fi réew mi toll. ku ci bàyyiwut sëriñ si. ah na wax rek man. xam nga damaa mën gërëmoo. waaye sëriñ si moom ku leen bàyyil ku ne. di nga sonn ndax. jigéen dafa ñun yàlla daf ñoo teral daf ñoo suturaal. ñun dañoo bari bagage. te jigéen boo dee jigéen am noomeel bëgg sa jëkkër mu bëgg la mën ngaa nekk sa sëriñu bopp saa nga dem ci sëriñ jigéen lan lañ wax ci jigéen. buy sëy da ngay set jonge mën togg mën lépp féete fépp sa jëkkër mën nga nekk sa sëriñu bopp saa nga dem ci sëriñ waaye xale jigéen ñi léegi ku ci am jëkkër demoo ci sëriñ wala ngay wujje demoo ci sëriñ danga naan sëyu ma mhm. dañ maa jékku. fekkee yow yaa jekk sa bopp mhm. balaa ngay dem ci sëriñ yow nekkal sa sëriñu bopp ba pare man de lool laa gëm mhm. Mhm. Euh, mënta ñàkk nag mënta ñàkk <laughs> euh, polygame Sénégal ni ñu koy dundee ndax euh, dina tax jigéen ñi nga xamante ni tey ñoo war a nekk ñaareel ñetteel ak ñeenteel am fit di dugg ci li nga xamante ne mooy di sëy boobu sa gis-gis loolu de moom dañu sonn rek xale yu góor yaa ngi takk dëkk bi la ñaareel gisoo temps yi dëkk bi ni mu tojee ñaareel ak ñetteel rek ngay dégg ñun dañoo bari macha allah. Uh-huh. du dëgg uh-huh. te suñ borom dafa ne góor ñi nañ takk ci soxna yi. Uh-huh. te ñun góor boo góor dëgg góor yàlla dëgg ñeenti jabar nga war a yor. ñeenti soxna nga war a yor. yaa xam ah bah bien sûr mais wujj dara nekku ci bopp wërsëg la rek. dara nekku ci. ku bañ sa jëkkër takk ñaareel da ngay sonn gaa yaa ngi génn doxaan ci xale yi ñu ngi takk ci xale yi. fi mu ne nii wujj gaa ngi mel ni tulleeg maarle ñetteel ñaareel rek ngay dégg. Ah, waaw waaw waaw moom dañuy xaar da ngay confirmer li doon wax ku ku dul doxaan amul kuñ jàppagul moo am. bien sûr kuñ dul doxaan gisoo ko ci àddina xanaa doo xool xale góor yi ah yow tamit. bakkan jàmm la bëgg bu ko mënee balaa ngaa yënga am kër yoo yëngal am na ñoo xamante ne jàpp nañ seen jëkkër du xool jigéen. yàq nañ ko déggoo ma de. Eh. dëkk bi fi réew mi toll. Eh. kuñ jàppagul de moo am. te ku ci bàyyil gëstu ak yërndu téléphone. Hmm. ak xool message di nga jàpp ak toppaate. Mm-hmm. problème bi fan la ci góor ñi la wala ci xale yi jigéen ñi fan la waaw mais ñun jigéen ñi dañoo bëri foog góor ñi takk ñeenti soxna yàlla dëgg la bëgg te góor yàlla dëgg da ngaa war a am ñeenti soxna ku jëm mettiwul waaw euh, saful ñaar ñu bokk wërsëg rek ñooy ànd mm-hmm. waaw mais ñenn ñi moom waaw ñenn ñi ma ko mën a wax ñoom ñoo tax seen borom kër yi dem di takki ñaareel wala ñu takki ñetteel ci naka waaw mais boo amee jëkkër ngay jigéen di sëy mm. mënuñu bàyyi damaa màgget wala damaa nekk mag wala léegi mënatuma mm. du màgget góor dafa bëgg lu neex dëkk bi génération yu 18 ans bi 25 ans xale yi dañoo jonge bu nekk façon bu ne ngay gis ay vaisselle yu doy waar ay xeetu bagage yu doy waar yi xale yor góor xam nga lu ko jommal dafa yomb léegi da ngay jéem a dem am ba benn âge bi ah. nga ne bàyyi mais ku jigéen buy sëy nga nopp sa jëkkër hmm. même boo amee ay doom yu mag jigéen waru bàyyi hmm. del sol lu rafet di xeeñ lu neex hmm. di parfum di cuuraay di togg muy lekk ba suur nga koy jéem a jommal Mm. saa yoo xëyee jommal ko wut télé yu bees waaw kooku du xool leneen. waaw waaw naa sama benn xarit de jaañ naan holding. parce que yonent bi boo ko jombalee sax taxut mu yem sax faale. amul naa ci ku baax nag yàq yaay baaba jaañ ku baax. dara jaañam ñi dañoo baax. ak maa xam naa ci ki ma ci xam ne daa dëng loolu. mënta ñàkk baaxul mu ngi nii ku a ngi noonu baaxul baaxul baaxul mais à chaque fois dañuy faral di dégg. Mhm. Euh, nit ku ci nekk da ngay am bëgg-bëgg. Mhm. Euh, dañuy dégg souvent lu ci bëri nga koy communiquer ne moom nga bëgg. Mhm. pourquoi ce choix nekk ñaareel man waaw ah ku nekk li nga bëgg rek man de moom laa bëgg nekk deuxième fa ci kàttanu yàlla ak mbaaxam eh. man yow mu laa taalibe sëriñ Tuubaa laa sëriñ Béthio mooy sama sëriñ aw ma tiitukaay cantaakoon bu mag laa eh? waaw wow ñaareel wala ñetteel man ñeenteel sax bañu ma ko maanaam mbirum mbirum wujje moo neex waaw daal nga bëgg doon wax yàlla waaw Ndo maa ngi koy nuyu bu baax doon wax eh, xam nga boo nekkee aaw da ngay sonn mm-hmm. doo am sa jotu boroom kër doo ko taal. waaw te góor pour nga mën ko foog nga taal ko. yaa ngi wax wax de. doy waar laa la wax. Eh. Mhm. ñaareel ñetteel ñeenteel yëpp a yam. wujj man daal aawalaay bañ première position. moom ngay bañ moom ngay xaar yii bugguma ko dégg. mariage dina la mare loolu moom. ah ko moom day xaar xam na sax li ma ko wax. <laughs> mais euh, macha allah ma koy nuyu bu baax a baax a baax. Ah. mais aaw boo xamante ne tamit euh, li muy jàngale ci. Mhm. série bi exemple la boo xamante ne xëy na waaye nag ni muy sëyee xale seetuñu noonu. am na nag pourtant. ci réew mi fii waaw maa ngi koy nuyu bu baax Mariette mu nekk ku baax. incarné na rôle bi dugg na ci personnage ba mu jeex macha allah. Mhm. am na nag am na aaw yu mel noonu. Mhm. ndox fi mu boo demee fekk fa tepp teppi hmm. am na aawa yu baax yu mel noonu yuy sëy te yàlla rek a tax mais mais mais réalité soxna Batoor yi bi ngeen joué ci série bi am na ñu mel noonu seen biir kër ñaareel yu danse yu doy waar ñaareel dañoo ak am ñu mel ni soxna Batoor di def li muy def ci kër gi bëggoo kër kenn am jàmm ñu ko gën a pur am na ah. daa ñaareel yu dance yu doy waar xam nañ li may wax ñu may dégg hmm, am na ñaar yu garaaw <laughs> seen ñaareel yi yal na leen yàlla defal jàmm yal na leen jàmm mais mm. euh, yaakaar naa ne point boobu am na solo loolu ci ñu taxaw ci gën ci leeral. Mm. ndax it lépp rek ci euh, jàngale yaakaar naa ne ci lañ koy def. mais mm. naka nga gisee li nga xamante ne léegi mooy millier aar bi mi ngi avancé. wala jàngat bi nga am léegi ci milieu bi daal lal la. ah bi moom chaque jour da nga ciy jàng doo mokkal aar dafa doy waar da nga ciy jàng chaque jour doo mokkal parce que macha allah dañ fekk suñu ay mag. Ah. suñu ay yaay. Ah. xam nga ñoo xamante ne. Euh, ñun sax tey sant yàlla liñ am ci aar ñoom amuñu ko ci aar kon loolu ci sant yàlla bokk mm-hmm. dëkk bi dafa avancé lépp avancé xam nga mais aar dafa nekk loo xam ne daal képp ko bëgg ku bëgg dara da ngay def dara da ngay tarbiyu mm-hmm. waaw da ngay jéem a dem defi formation mm-hmm. bokk ci aar koy bokk turub ñu lay tàggat nga am ay kilifa yu baax di leen déglu looy def ngay laajtee xam nga nga xam sa bopp gëm sa bopp ñemee am fulla am fayda lii de laa ci xam. loolu mooy aar waaw lii ay aar. ma profité rek euh, nuyu ci bu baax a baax a baax suma sponsor dibiteri Uba yaakaar naa ne sénégalais xam nañ ko xam lu baax li nga xamante ni euh, moom la taxawee ci réew mi ah euh, dibiteri Uba li muy def ci réew mi yaa ngi ko yëg. Uba. waaw ah. de waaw Uba de reer naa fa bu yàggul dara rek. Mhm. waaw bu yàggul dara reer naa fa ba suur. tubaarikàlla. Mhm. macha allah mën nañ lool. waaw mën nañ daal ah. waaw laay laa seen musal. Mhm. ak seen michu yi. jar na 14 milliards. li daal ñam naa ko moom xam naa ko. xam nga ko ci ñu ubaa. marine bi jar na 14 milliards. ah noonu nekkee ci réew mi de ndaanaan la de lu baax rek lay def ci réew mi te ah. euh, yaakaar naa ni fi may jaar ak say say nit. Mhm. dama bëgg mu jaar fa ak yow ah ubaa valideel ma comme d'habitude. yónneel ma Amina xaaju xar. Eh. moom man lay topp lu ma ko def. waaw lu ma ko wax loolu def te da koy def. nga da koy def xaaju xar ci man xaaju xar la lay yónnee. laay samay xarit laay woo ñu toog. nga ne xam naa daal moom marine bi. Mm. jar na reer naa fa bu yàggul dara jar na 14 milliards. marine bi moom xam naa ni marine bi xaw ma ku koy marine waaye ku doy waar la. mën na ko de mën na ko de mën na marine trop. man daal yàpp saaf bi man dina ma rey man yàpp saaf bi nag man dina ma rey man. waaw baax na kon ubaa rek heure bu ma faatoo rek nañ xam ne ci yàpp saaf bi. kon ca ubaa bala rek yàlla leen yàlla dafa jàmm barkeb Serigne Saliou. waaw barkeb Serigne Saliou ñi koy ziar di ko nuyu bu baax a baax a baax ah, moom suma frère euh, Uba di ko ñaanal jàmm waaye di bëgg rek ci li nga xamante ni mooy ànd ak liggéey bi nga xamante ni ñu ngi ko ànd di ko liggéey ak moom mhm. beneen point bi nga xamante ni bëgg naa ñu taxaw ci ni ay porteur de voix lañ léeg ñu gis bànneex dal nit ñu wax ci wala léeg ñu gis naqar dal nit ñu wax ci démb mu def sortir euh, avant sortir bi am natt bu daloon ci kaw muy suñu sista Ndeye Ndiaye Banaya ñu koy ñaanal jàmm bu baax a baax a baax waaye démb dafa def sorti wax ak sénégalais ginnaaw natt bi nga xamante ne daloon na ko naka nga jàngatee sorteem bi mu def kàddu yi mu wax ak euh, ni mu waxee ak xol daal jàngat bi naka nga ko dundee. jàngat aar dafa doy waar ndax ñun ñëpp benn la showbiz dafa garaaw donc may waxaat di bamtuwaat naan ñun ñëpp nañ moytu muy man muy keneen ndax euh, noonu dafa sew kenn xamul donc ndogal mënta ñàkk ak mm-hmm. problème te xëj na dafa waroon am mm-hmm. gis naa tuuti vidéo yi daal gis naa ko mm-hmm. Sidi Diop ak Waly ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaye kenn ku nekk yaay xool fa la neex nga dem fa noonu laa ko jàngate dafa sentir Waly dem ci Waly yàlla na ko yàlla jubaleeg Waly ah ñi ci des muñ loolu laa euh, dina ñëw tuuti ci li nga wax dafa centré Wally dem ci Wally waaye yàlla daf ko nattu woon ñaari at ci ginnaaw. Mhm. am loo xamante ne xëy na génnee nañ ko ci vie privée mhm. waaye démb ni mu ci communiqué. jooy mhm. tuur rongoñ jéggalu sénégalais xam ne juumte la nit ku bon moo ko génnee ngir yàqu ko mais nit ki nga xamante ne tey jaakaar naa ne juum na taxaw devant les sénégalais nangu erreur am nangu njuumteem. Mhm. tuub baalu sénégalais fas mhm. yéenee jël yoon bu baax. Mhm. naka la ko sénégalais war a taxawoo. comprendre ko li ma wax sànq rek noonu dafa sew. kenn xamul na ñëpp préparé ndax dëkk bi dafa toj. na ñëpp waaj mën na ma dal mën na dal keneen ak keneen ak keneen. te ndogal fu nekk lay jógee yàlla nañ ci yàlla musal mais noonu dafa sew. day tax man li ma koy wax. mooy mu gën a moytu rek ci lépp. mu gën a moytu mu gëm boppam nekk ci lim nekk. jeex na tàkk leneen amu fi fii gën a bees TFM ah mhm. waaye lu ne am na fi gis nañ fi lu nekk mhm. waaw mhm. sénégalais nañ ko comprendre comme génn na baalu ñëpp xam nañ ne lu amoon la te jàll na ñu ne ñaanal ko yàlla defal ko jàmm naka nga gisee à chaque fois jigéen bu ko natt jigéen ak jigéen jigéen dafa doy waar ñun jigéen ñi dañoo garaaw waaw dafa yéeme trop ànd jigéen moo doy waar mais yow si sa jëm bopp nit ki yaay moytu di muñ ngay ànd ak ay nit dëkk bi dafa doy waar xam nga li ñu naan xarit. Mhm. am na amul am na ay xarit ña daan baax ba tey ñu ngi baax lu ñu changé man samay xaritu démb samay ami d'enfance ba tey maa ngi leen di gis ñu ngi may jàppale. Mhm. sama première saison famille sénégalaise. Mhm. yee sax dama waxuma ko mais première saison famille sénégalaise ba deuxième saison samay amee may yónnee maa ngi nuyu sama grande sœur Ami Collé Italie. yaay Aminata ku baax. def euh, ngénte li mm-hmm. daf ma yónnee ay perruque ak ay yére yu baax ak ñeneen ak ñeneen samay xaritu démb ay ñoom Binta jaa ñoom Khady mm-hmm. samay am ñoom ma maanaam bugguma lim daal mm-hmm. mais man samay xaritu démb ak bërki démb ba tey ñu may dimbali ñi ma xam it tey gisuma ci kenn ku ci bon dañ lay woon naan la Aïda kañ ngay dem tournage am solal lii xam nga jëndal lii njaay doo def lii tegal lii est-ce que comprendre nga am na ñu baax ñii baax ñi ngi baax ñii bon ñi ngi bon jikko la rek li ma la wax sànq nit loo nàmp ngay tàkkamtiku sa yaay mën naa baax ñu naan doom ja ndaay ja léeg ñu naan baay bu dee góor baay ja doom nangam yooyu yëpp mën nga gëmuma ko mm-hmm. baax danga koy judduwaale mm-hmm. baax dañ koy judduwaale dañ koy judduwaale. Euh, man samay xarit dañoo baax. Mhm. maa ngi mam mami sama mbokku taalibe sama kon bu mag bi. waaw maa ngi nuyu may ki sama ginnaaw. bu baax sama xarit la mën a ruube la waaw macha allah sama xarit la ah? di nuyu waale ndey kumba sama doomu ndey sama doomu yaay. <laughs> jeex na jikko macha allah yaakaar naa ne kàddu yooyu am na solo loolu waaye sànq dugg nga ci rek ci li nga xamante ne aussi moo di showbiz. Mhm. Euh, Ndeye Ndiaye Banaya taxaw. Mhm. ne léegi maa ngi fi nga xamante ne moo di ci kër Wally Seck ñu commencé gis ay critiques à chaque fois show yu mel noonu ci show bi rek lañ koy gis mais c'est rare ñu gis artiste buy joué mhm. joué Pikini mhm. jógee dem Morodi mhm. wala mu dem Even Pro ñu wax ko yéen waxi pourquoi à chaque fois showbiz waaw xam nga showbiz moom dafa doy waar yëpp benn la sax showbiz moom dafa garaaw nit hmm. daal yaay moytu ndax tey jii moom jógee ci Sidi Diop dem ci Waali yàqul dara moo xooloon ba mu neex ko mu nekk ci Sidi Diop mu xoolaat ko ba mu neex ko mu dem ci Waali waale ko doy yàlla na ko yàlla defal jàmm. Mhm. seen côté ñoom fu nekk ak euh, ni ngay demee. Mhm. waa ndax ñun moom artiste du ma ne am na. wala amul mais man gisuma ko mhm. franchement dégg nga te aar dafa doy waat tey nekkul da ngay liggéey ak Pikini production rek fa ngay resté mhm. nekkul da ngay liggéey ak mbaraw di rek fa ngay resté mhm. ça dépend rek ci artiste bi ak nit ki waaw nit loo tàmbalee sa liggéey rek moom ngay continuer moo tax liggéey il faut nga xam ko tuuti di déglu ay mag waaw naa ne da nga leen di baale yi ñoom ñëpp muy Sidi muy Waly yi artistes yëpp say xarit lañ euh, critique yi nga xamante ne moment yi ñu ngi koy teg ci kaw Sidi Diop ban jàkkat nga am na muñ mënta ñàkk moo ko ànd nday tari sorotul muñ mu santaat yàlla xam ne lu war a am la rek mm-hmm. mu am nit daal doo tontu da ngay jégg mm-hmm. da jéggale di jélale mm-hmm. bu xoolee ne démb moom nday njaay band yaa neexoon na bu mu xool ne tey dafa naqari ndax rakkam la doomam la mhm. moo ko wax te Ndeye Ndiaye ni mu waxee xam nga ni dafa bëgg Sidi Diop mhm. waaw Sidi papaam la magam la donc na ko jéggal ñu bañ a kenn ku nekk bañ déglu kenn mhm. waaw ku nekk bañ a déglu kenn kenn bañ déglu kenn muy am lu am solo waaye nag dafa am loo xamante ne ni ma koy waxee ñun ay porteur de voix lañ laataa ñuy taxatoo ñu taxaw ci tuuti rek nag à chaque fois dañuy faral di ñu interpeller ci yenn cas yi dafa am benn cas boo xamante ne dañ ma ko jox am waa ji mu dal mu koy dund yaakaar naa ni sur le nom de Abdoul Aziz Fall li problème bi ak cas bi dafa bokk ci famille boo xamante ni li ñuy dund mooy euh, mariage forcé mhm. mariage forcé bëri na ñenn ci ñu ma dal ci ay sëram waaye dafa am raqam boo xamante ne dañu ko ko bëgg a dundaloo ci li nga mhm. xamante ne mooy di mariage forcé boobu mhm. noonu ndax dañ ko bëgg may nit koo xamante ne dafa am alal loolu rakkam bañ see d'accord ci ni ñu may expliquer histoire bi mu ànd ak rakkam daal di daw ndax bu bañee dafa am ay menaces yoo xamante ne dañu koy teg seen kaw naka ngay jàngee li nga xamante ne mooy yenn mariage force yi nga xamante ne ñu ngi koy dunduloo yenn ci jigéen ñi ba dem ci li nga xamante sax moo di affaire de circoncision maanaam jongal jigéen mm. yooyu wala yenn détails yi nga xamante ne léeg-léeg jigéen ñu ngi koy dund euh, ñu bëri jàpp ni dañoo na Sénégal mais ba tey mi ngi am ci réew mi mm-hmm. naka nga koy jàngatee parce que ay porteurs de voix day baax ñuy communiquer ci mbir yu mel noonu Nasta soj bi la soj bi la bi la xam nga lii dama koy wax rek artistes yi man sama ay xarit lañaa ah. ndax ah, man maa am sañ-sañu fekk leen ñu nekk ci lu leen neex ma déranger leen tey moom bi ñaar seen loxo ne leen da ngeen di toog waxtaan ak mana ah. samay xarit lañ mais yàllaa def loolu sama diggante ak ñoom naka nga jàngatee mbir moom nga xamante ne léeg-léeg nit ñi waaw loolu nag euh, mm-hmm. frère de cœur mënta ñàkk parce que xam moo tax mm-hmm. mariage forcé bu njëkk la gënoon a bari que léegi mm-hmm. bu njëkk ba man jàppoon naa ni sax loolu jeex na. Mhm. ah mu ngi am ba tey mu ngi am ah. mais nit naka lay sëy ku mu bëggul tamit. fi mhm. mi toll ñaar ñu bëggante ñooy sëy ñaar ñu bëggante mënu ñoo sëy. Mhm. ñaar parents yi nañ bàyyi xale yi ñiy bëggante ñi ñuy bëggante ñuy sëy ak ñoom. ndax lalu mbëggeel xat na xat goo xam ne. koo bëggul noboo ko mënoo sëy ak moom. yàlla dëgg la bëgg. nañ bàyyi xale yi ñu bëggante sëy yàlla tax. waaw ah, kooku ay menaces yi muy xaar ak yooyu yëpp. waaw daw na ak rakkam non ci li nga wax. Mhm. li nga dégg waaw ci liñ na daw rakkam. Mhm. waxtaan ak rakkam. Mhm. jéem ko indiwaat. ñoom seen parent yi dañuy xaar parce que mag ñi bu njëkk bañ leen daan maye ci seen biir ay doomu bàjjen. yooyu ñuy def. ah amatul léegi ah. amatul tukulóor yëpp gënoon bëgg te taluñu ko sax léegi. man de kenn du ma maye mariage du forcé. Hmm? déedéet. mais léeg-léeg ko nopp waaw mais am na. du mën a famille yëpp mais am na famille yoo xamante ne bu alal présenté woo ci kenn góor gi nga xamante ne bëgg seen doom du ñu xool seen bonheur doom ñoom leen neex rek la ñuy gis ci alal loolu moo war a jeex parents yi mhm. ñoo war a xool seen bonheur doom yàlla dëgg la bëgg mhm. ah alal sëyu Mm-hmm. alal bu doon tax nit ñi di sëy mm-hmm. ah kon réew mi dina doy waar de mm-hmm. ndax alal lu mu bari bari bari bari bari boo duggee ci sëy ba ndax alal bi alal bu jeexee dangay tax sëy bi waaw kon mbëggeel mooy lépp parents yi ñoo war a dellu siwaat seen xel yi jël alal gi teg ko fee ku sa doomu bëgg nopp ko ñu may ko ko te yàlla tax waaw loolu lan la mën a indi après ci dundu jigéen mais mën na jur lu nekk ñaata jigéen ñoo fi xaru ñaata jigéen ñoo fi am doom sax dee ñu naan nangam sangam fekk ak ay feebar ay goitre ay cardiaque mhm. souffrance bu metti mhm. moo koy def mhm. ngay sëy koo nobul nga tëdd nii ma tëdd nii nobu ma la mais lool du neex du dem nañ bàyyi say force yi ngir yàlla tamit balaa ma wax guru moo non non ah man daal lii laa ci wax. Mhm. macha allah loolu am na solo loolu parce que yaakaar naa ne askan bi bu ñu amee lu leen métti wala lu ñu naqari ñun ñi yàlla natoo ñu doon ay porte de voix ñoo ci mën a communiquer waaye aussi ñu ngi masaw bu baax a baax a baax waa jooju di Abdoul Aziz Fall mhm, ci li nga xamante ne moo ko dal metti na ak mhm. loolu ginnaaw ñun dinañ ci gën a dox ay jéego pour gën a xam ci fu mu nekk ak raqaab beeg ginnaaw ñi nga xamante ne ñoo ñu jox lii waaye ma bëgg rek ñu tëj tàggatoo ci loo xamante ne nag askan bi yaakaar naa ñoo ma ko ñaan ne mhm. nga may leen ko ndax dañoo xam fi nga toll si moom mooy nga may ñu témoignage si sa yaay ndax fi nga mhm. toll ci moom loolu laa bëgg tey nga may ma ko amee eh, foofu day doy waar loolu laa bëgg foofu du ma fa mhm. nuyu sànq moom laa njëkk a nuyu sama yaay moom maa ngi koy nuyu daal bu baax njaay jaata yàlla na yàlla guddal fanam te bàyyi ma moom ma mottali sama yéene yi euh, frère sama yaay dafa sori ci man moom laa am moo tax may sonn moo tax may daw bugguma ci wax daal dafa sori ci man. dafa sori ci yow waaw dama ko bëgg trop ba mu ëpp. kooku yàlla na yàlla guddal fanam bàyyi ma ak moom. Mhm. waaw euh, sa diggante ak moom à chaque fois tamit day baax. léeg-léeg nit tamit génne wala ñuy rendre hommage suñu waajur ci moment bi ñu fiy nekk. Mhm. li nga dund ak moom lan moo la ci gën a marqué. lépp <clears throat> mënuma ci wax na dama yàq émission bi. non dañuy waxtaan ah. man. mënuma ci wax non non man bëgguma ñu yàq suñu émission. dama ko dañuy waxtaan dañuy <laughs> moom dafa sori rek ci man sama yaay dafa nekk jigéen bu baax. Mhm. bu nangoo sëy maa ngi koy nuyu bu baax ah, di nuyu samay mag yu jigéen samay rakk. Mhm. di nuyu famille Ndiayeen di nuyu ñëpp. mais mu nekk jigéen bu baax muñ kat jàmbaar ku bëgg njabootam sama papa 99 la gaañu sama yaay bi mu toogee ba tey jógul Ndiaye yàlla na yàlla guddal fanam nee naa la yaa tax may sonn te dinaa ko teral incha allah. Mhm. yàlla na yàlla guddal fanam bugguma ci sori parce que moom euh, dafa sori ci man sama yaay daf maa bëgg sama ay mag sax dañ naan sama yaay diw nga gën a bëgg diw nga gën a nangam man samay mag sax dañ maa reewal samay mbokk man damaa mel ni princesse ci seen biir te loolu lépp njaay jaat moo ko waral sama yaay mhm. sama xarit la mhm. moom laay wax lu ma neex moom laay wax lu ma nakari sama yaay man lay waxtaanal ci doomam naan ma moom ma ko mës wax de su may waxtaan ak yow da mel nii sama yaay te yow maay sa yaay kooku su ma toppee wax bi wuu du baax amay mën naa këpp léegi yàlla na yàlla guddal fanam te bàyyi ma moom. Mm. ba yéene bi ma bëgg bëgg koo def eggale ko ak képp ku sa waajur nekk ñi seen yaay gaañu yàlla na leen yàlla yërëm. Mm-hmm. waaye man àttanu ma doloor boobu bu naree dem. Mm. moom na bàyyi man ma dem moom mu toog dafa sori ci man trop mënu wax sama yaay. Mm-hmm. mënoo wax ci moom. Mm-hmm. ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax suñu yaay yooyu yàlla yàlla defal ko gudd fan bu ànd ak wér ndax nee na lii day faral di am solo ci xale yi nga xamante ne ñoo leen bëgg di leen seetaan. Mm-hmm. ndax saa su ne rek ñuy gën a jàpp li nga xamante ne aussi moo di seen i ay waajur mi kàddu yu am solo ci li nga xamante ni moo di témoignage bi ak kàddu yi nga wax ci say waajur muy lu am solo. kontaan naa ku teewul sa yaay yàq nga ko. nday dafa fort. doom yëpp ñu ngi rawante ci waajur yi man de ginnaaw yàlla nu ma mel. sama waajur moo tax te maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. su nga toll dund ci moment boo xamante ni tey da ngay xam ni ñaanam ak liggéeyam rek moo la ci génnee. mënta ñàkk. dund nga ko mhm, lu mu lëndëm lëndëm damay xus yàlla. Ah, tollu toll naa yàggul dara man déjà bi ma jógee famille sénégalaise ak léegi tëdd naa fi 3 mois yu metti ñu bëri xam nañ ko samay entourage mais ginnaaw yàlla ak yonent bi sama waajur bu jigéen man xam naa ni moo ma dooleel waaw. Mhm. yaay yaay dafa foor mhm. ku am sa waajur téye ko ku mhm. téyul sa waajur pett nga mhm. sëriñ sax boo fay dem pour mu ñaanal la te amoo ñaan waajur mook zéro yam lépp li may diggal képp mag ak ndaw ku tarbi yu wul sa yaay wala téye woon sa yaay. noo hmm. téye ku ko téye woon cat yëkkati ko ndax nday du morom. wallaay dëgg la hmm. macha allah kàddu yi am na solo loolu ci dalal bi nga xamante ne seqoon nañu ko ak yow yaakaar naa ne waxtaan bi neex na damay profité rek euh, laataa ñuy tàggatoo tamit nag comme ni ma ko waxawoon sénégalais tey da ngaa def robe da ngaa sañse. da ngay jël kaw fi nga fi nga toog ku génnee fii. laa ilaha illallah. li nga def doy na war sama robe da nga koy jël kaw ba suuf. waaw man ndax tubaarikàlla macha allah. Mhm. ki ma ñëwal dafa sori. waaw samedi lañ gisee cant sëñ Saal Kebe maa ngi koy nuyu bu baax borom Madinatu Salaam. Mhm. ndigal couture moo ma ñawal. Mhm. mu ngi ba Madinatu Salaam samedi laa ko gis. nekk dama émission mu ma dama lay ñawal. ma ne ko amu problème ma ma ne ma yónnee ma mesure. Mhm. ay 18 ma nga jógee ba Madinatu Salaam. xanaa moo ma ñawal. moo def loolu sëñ yàlla na yàlla guddal fanam. amiin waay te bàyyi ma ak moom. Uh-huh. te du bii rek la ma ñawal yàgg na maa ñawal. tubaarikàlla man damaa bëri ay tailleur. bala muy ñëw tey laay création yónnee na. dégg nga Moussa yónnee na ma. waaye moom faaw ma sol yéreem ndax ba mbuur la jógee ñëw. ndeysaan ndeysaan barke Serigne Saliou ndigal couture ku baax sañ Saliou. Mhm. yàlla na yàlla guddal fanam te bàyyi ma ak moom sama bokk taalibe taalibe Serigne Saliou boobu. Mhm. waaw mooy def lu rafet yeeg yu baax yi nii. yu doy waar romb bu garaaw la ma ñawal moom xanaa góor du ñawal góor. déggoo ma ne da ngay jug moom lépp lay ñaw. ndigal couture ne ko dinaa ko dinaa ko certifié ci màggal gi ñawandoowul ak kenn naa ko certifié ci màggal gi na xale jënatu max waaw ak ñëpp fa cant gi a ñëpp dem mu ñawal leen waaw lii sama robu yow dafa tuuru surtout surtout ren doxantul tuuti avant doxantul ne laa la wax laay daay da da ci man xale yi famille sénégalaise ndigal a def nii ndigal bëgg naa ci yow waaye bëgg naa ci yow ndax fu mu nekk nii moom yaakaar naa ni Euh, daa taxaw taxawaayu solution pour dimbali xale yi parce que yaakaar naa ne ren moom Baye Fall yi moom dañoo jël seen matuwaay ah. nañ fa dem lii moom boo ko solee Baye Fall duñu la wax dara lu la Baye Fall yi dañ naan la rombal teg ci sa benn musóor bu ndaw mm-hmm. teg ci musóor bu mel ni jàmm nga tagal ma ren ni nga duggee Touba waaw waaw xam nga ñun moom ah. ñun moom màggal nañu màggali ji waat non ren tent bi waaw non ñun ñun bu ñuy màggale yaa ma gën a xam eh. ñun ay cantaakul Baye Fall yi ndigal lañ leen di jox. te murid da ngay jëfi ndigal. Mhm. du dëgg. waaw dañ leen jox ndigal. Mhm. murid dëgg da ngay jëfi ndigal ndax ñun tubaarikàlla sëñ Saal ndigal cuun lañ àndal. waaw yal na yàlla guddal fanam. waaw bàyyi fi ndigal cuun. waaw ndax ñun moom la ñu topp. Mhm. lu ñu tere ñu def lu mu digal ñu bàyyi. ña nga janatu xam nga ne du ñu demee nii at bu ñu màggali waaw waxtaan na neex borom kër ah, tamit ci dëkk da def li borom dëkk bi bëgg waaw loolu yee dëgg kon nag nañ def li borom dëkk bi looloo yoon sax looloo yoon ay murid lañu murid da ngay jëfe ndigal wallaay ndigal rek waaye ñun xam nañ ne bu màggal ñun dañuy defar suñu bopp yi ba mu baax taarkaal danañ ko ñuulal waaw danañ ci teg bone waaw danañ mu sóoru waaw ñu dem sant sëriñ bi ñibbisiwaat barki Cheikhul Khadim waaw kon ñuy màggali mhm. ñu xam même bu dul màggal Touba mhm. moo nekk loo xam ne dëkk bu doy waar mhm. ñun liñ am kenn amu ko dëgg la waaw bu ñuy dem màggali ñu waajal moytu daal lépp lépp lu Baay fal yi di tee muy góor muy jigéen nanga ko moytu waaw dëgg neexu macha allah du ma toog ak yow ba tëj sama waxtaan te duñu nuyu suñu xarit boo xamante ne yàlla moo ñu ko boole ñu bokk ko muy Assane Fall borom Global Textile waaw waaw koy nuyu bu baax a baax a baax mon frère baax la koo xamante ne maag moom yàlla xam na ma xam daal. waaw ku baax la macha allah maa ngi koy nuyul bu baax. Mhm. ñi nekk ci place bi yëpp mhm. man moom sama waay la waaw ku baax taal bi sëñ Fall bu baax bi mhm. ah man Assane Fall mun wax ci moom ndax tubaarikaala barki sëriñ Saliou Mbacke moom it yónnee na ma 4 mètres jasner bu mel ni jàmm na ma këppati ko man ko dafa jàmp mhm. billaay mu baax bëgg artiste yëpp Assane Fall artiste yëpp lay bëgg amul xaaji amul seen terangaam ci ñëpp lay dox waaw ci ñëpp lay dox kon kooku taalibe Alaaji Fallu Mbacke la yàlla na ko yàlla kontaan naa bu baax a baax ci dalal la ma bàyyi rek nga tàggatoo. waaw xanaa maa la gën a kontaan frère de cœur uh-huh. émission bi yaa ma gën a xam. Uh-huh. waajuñu ko naam. Uh-huh. waaye santaat nañ ci yàlla. santaat Serigne Saliou sama wasila man. di képp. ku may seetaan képp ku bëgg Amina góor ak jigéen mag ak ndaw maa leen di waa Grand Médine fa ma juddoo ndax nit nekk la doon boo ko bañee dafa fekk gën ñaaw Grand Médine laa juddoo ñëw parcelle mhm. di nuyu waa Gambie mhm. diaspora bi aw ma seen fay di nuyu mhm. samay xarit samay mbokk sama waa koñ maam cun sama góor ma ngay attaaya tubaari kàlla ba nga ma jàppee ba léegi bàyyi woo ma nuyuwaale ma sama xarit bi Fanta ah. Seydi fan yi dama koy baab ci baab bu métti laa nekk ak moom baax day nangu Fanta dafa baax de yow Fanta Seydi rek kooku Grand Médine boolewuñu dañuy ñoo gis famille sénégalaise ñu am nu ñu mel. man sama xarit la. waaw ah, kon na neex. xam naa ne nag damay wax lii nag mu jàppee ko ay dóor fanta. ku baax la barki Serigne Saliou non nit ku baax la nit ku nekk nañu xam nga ay fan. Mhm. ay weer du ay fan du ñaari fan mais ku baax la. Mhm. waaw moom ñoo bokk dëkk Grand Médine mhm. baax na bëgg na artiste mhm. yaru na Fanta day nangu day nangu de ah. Ah, maa ngi nuyu képp sama xarit la maa moom ñoo ah. maa ngi nuyu aussi artistes yi nga xamante dañoo nekk euh, famille sénégalaise ñëpp ndax man wax dëgg fa ñëpp samay xarit la ñaar surtout surtout ki nga xamante ne moo di Aliou Ndiaye sama papa Aliou Ndiaye suma xarit la maa ngi koy bégee bu baax a baax a baax uh-huh. dama ciy ñëwaat uh-huh. naa la kooku lu ñu am lu ñu mel uh-huh. moo tax Ndiaye taalibe Sëñ Saaliw waaw baax Aliou bëgg na artistes yi dëgg la tournage yi de man daal mosuma gis tournage yu mel noonu condition yu baax la ñu teg jox ñu ay millions yu bëri mm. desalul kenn nag mm-hmm. na leer desalul kenn xaalis njaay jaata uh-huh. taalibe sëriñ saale bu mag bi yal na yàlla guddal sa fan amiin waay man maa nga ca yow ba géej bi fer waaw waaw nuyu képp ku bokk Pikini uh-huh. fa mm-hmm. bokk ak ñi fa bokkul maa ngi nuyu ñëpp nuyu àdduna wërngal képp bu ma limee damay juum boo limee da ngay juum dëgg neexul waa kuy fëgg du yegg kontaan naa a baax a la tàggatoo woon naa sànq sax ba pare waaye damaa fàtte woon a ñëw ak moom ci loolu Amina. Mhm. Euh, yéen mënoo leen ñoo dimbali ci ngir yàlla ak yonent bi chaque jour yéen a ngi joué ni ngeen di sëyee di jàngal xale yi sëy di jox xale yi ay conseil te mënoo leen toog seen kër yi nekk ay célibataire lan mooy problème bi yéenay dàqi wala gars yi ñoo ñemewul ñëw dëggal seen bopp. gars yi dañoo ragal. pardon gars yi. waaw xam nga ñuy bëgg a reyee. waaw amoo numéro Amina. waaw amoo numéro diw. de lañ lay reyee bu ñu doxaanee ñaari fan ñetti fan bëgg fuñ cakkaayoo fuñ foowee fuñ jaaxaan di lekk di naan. waaw ñi pare pour takk dëgg. waaw non duñ fi teree nañu ñëw rek takk sëy nag xëñ na moo jotagul bañuñu de benn artiste bañul sëy. Mhm. bëgg nañu sëy bañuñu sëy suñ sañoon sëy ndax ñu ngi jàngale. di le waaye gars yi dafa am ñu tàppet man nag kii fëgg laay waxal naa yegg bu yegg ma xool keneen ah dama ko nopp trop waaye bu ñëwul. waaw keneen ku ñëw damay sëy ndax damaa sonn ci toogaay bi dëgg am na ko fi ne wala fi. ah tamit jonga ma bu mel ni man fi réew mi toll nii. Ah. am na ku ma nopp tubaarikàlla yàlla ma yàlla kooku li problème am. yee na gaaw naa ko moom bu ñëwul ñaan si. Hmm. ma dem ñaani ko. ngeen kon na gaaw waaw. Ah, bu ñëwul damay dem ñaani ko. waaw mais nag gaaw nag fii xawee yéex tuuti. waaw ah. ah yaa ma gën a xam ñu teg ko ci banc bi dañ koy teg ci banc bi ñun jour bi football lañ moom day xaar jour da ngay jour bi football lañ bëgg. franchement attaquant di pointé di dugal ah. li laa wax de. loolu nga wax. Mm-hmm, mm-hmm. kon nag sa waay avertir nañ la. yegsil may nañ la dele nag fii ba ñu màggal ba pare. waaw waaw balaa màggal gi sax mënoon naa ñëw. balaa màggal mais comme dañuy màggal. waaw bu ñu màggal jiyee ba ñëw ci jàmm. ba ñëw non boo ñëwul. waaw man damay yónnee. waaw bu yëf yi xawee doy waar ndax xam nga say xarit sax dañuy jéem a. kii waaw waaw dama lay teg maanu tuus. Ah, waaw waaw ah, waaw dem ah, ah takku naa ba ñun partant la ñuy wut kuy doxal kontaan nañ kenn du ci réew mi ah. <laughs> ah gars yi nag. ku ma nopp la ku ma bëgg la ku am yërmaande ci man la. waaw. Mhm. yaa dalal xelam noonu. waaw gaawal nag waay ah gaawal